mais encore la folie des fous. Vous allez m'excuser de la répétition. Nous avons des fous dans ce pays. Une opposition nulle, malhonnête, anti-républicaine. C'est les dire conseil de traître. Parce que traître rek mooy nangu ce président dem réunion des présidents du louer avion wala dafa yóbbaale ñàkkal fayda sa réew président bu amul avion proposition moo war a imposer Macky Sall mu jëm jënd avion ndax c'est l'image du Sénégal c'est un acte de souveraineté le Sénégal mu ngi mel ni équipe nationale du Sénégal war a fubal Sadio Mané la ñu am ñu ne du ñu du ñu wane Sadio parce que léegi crise la quoi Sénégal na jël équipe joueur yu ndaw yi doo wane sa bopp ndax ñi nga toog a respecté la jox la cër bu ma ñëwoon fii soo sol yére yu xotteeku yéen du ngeen ma respecté kon suma passé dina ma jéppi pourquoi sëñ yàlla yàlla yokk leeram xalifa général des Tidianes bu solo woon ba toog majestueux yére bi rafet gi ko wooyee borom sañse bi dafa am cër boo war a jox li liñ la jox dafa am lu mu àndal mais y a tellement d'opportunistes des gens malhonnêtes naan fi ñu toll nii avec la crise là waratoon jël avion bi ñuy livrer dans quelques jours mois de juillet il faut minimum deux ans et demi pour construire l'avion ça a été commandé depuis deux mille dix huit cet avion là comme deux dix dix du coronavirus ñun deux mille vingt jot ci coronavirus mars mille vingt il faut être malhonnête et ils sont tous malhonnêtes tous tous ceux l'avion là sont malhonnêtes maa ko wax ils sont malhonnêtes ils disent tous que fi ñu toll dee war nañ xalaal leneen lu commandé avion mais ñoo mën a fet avion ñu ko soog commandé kon on va le construire dans en deux mois <laughs> ñu ñoo mën a fet kàcc rek avion ba koy commandé coronavirus amul ñu naan mënoon ci defa ñaata hôpital ay hôpitaux ñaata hôpitaux 67 xaw ma 60 milliards dafa doon ñaan naa ay hôpitaux ay dispensaires waaw léegi bu ñu amee OUA réunion bu ñu amee UEMOA CEDEAO bu ñu amee sommet en France comme barki dem moo Ndiaye président yëpp ñu goon France pour xool du ñu négocier la dette mu nekk président Burkina Jaar yóbbaale ko wala président Gambie Adama Barrow ba ko yóbbaale waaye ñi ñi est-ce ay nit la ñu si mu ko jëndee cherul mais mënul ñàkk ñu xool di koy fayee depuis boobu ñu koy fay ndànk-ndànk ñu war waroon nañ koo wax budget bi nangam nii mais lu ñu wax cest lu fu toll ñu ngi wut wax fu ñu toll ñu ngi wax mël mël mël mël liggéeyu xalaatuñu waxuñu dëgg lu may kàcc nar sos pour toj bopp nit ñi pour falu ko ku jooyu dina falu xanaa duñu duñ fal ay ferkat ay sàcckat bàyyi ko mel ni El Hadj Diouf seen député du peuple l'homme du 23 juin di fal ay ay ñi nga xam ne day dox ci kaw maanu nit ñi di rey nit ñi taal kër jàmbur yi di jaay doole nit ñi naan addiye ko joxe ak ki ko ki ko jël loolu crime la addiye kenn waru ko joxe Ousmane Sonko bind na ko ci livre bi sëñ Mountakha maa la yëgal loolu ay yéen waa Touba. merci merci de